aousubillahi mina an rajim bismillahi rahman rahim mbokk yi nga xamne ñoo ngi tewlu ñu ngi ni ñep di leen ziar ñu fasiyene dik ci benen mm, njariñ lu am solo bi nga xamne nañ ko jallale ci barab bi ñu koy faral di jallale am ñu ni jamm nak lo xamne daana nga dafa bari ñu koy jàmbat muy am ay jafé jafé diggante ak seeni soxna wala ak seeni borom kër ñu koy jàmbat ñëpp dañoo ku ne mëno di ko kii moo tax ñu bëggoon a yaatal njariñ li rek incha allah rabbi e, e, nopp bi nopp bu am doole la te am solo mm, lu gaaw a jàpp la incha allah rabbi e, da ngay jël li ma lay bëgg wax nga teewlu ko bu baax waaye balaa boobu képp koo xam ne yitte woon na suñ numéro ci ñaan wala ci seet mën na koo jël 76 833 59 18 76 833 59 18 incha allah boo ko jëlee mën nga cee woote li nga ci bëgg eh, dinañ la ci wax li nga xam ne moo fi am incha allah léegi loolu muy nag hmm, wala ku bëgg ñaan ñaanlu rek wala nga bëgg seetlu wala koo xam dafa am jafe-jafe émorite wala ndoxu sit mën naa war ci numéro yi incha allah 833 59 18 ni nga koy liggéey lu mu doon nag hmm, badoo wudóor xeet yu jaamia ngay liggéey limu hmm, 787 ñu koy wax safasun léegi nag dañ koy bind euh, limu 66 nga koy bind ba doo wudoor yaa ngi koy bind limu allah 66 nga tijji mm, miim yëpp nga dugal sa tur ak tur ki nga bëgg a nopp ngay sikkar nag ba doo wudoor de xeet yi jaamia ñetti fan nga koy liggéey incha allah rabbi gannaaw gee nga koy liggéey incha allah eh, boo ko defee suñu borom dana tàggatal kooku nga bëgg a tàggat eh, te dina topp say ndigal te du ngeen am benn jafe incha allah rabbi kon ñu ngi jégalu baax baax waaye comme képp ko xam ne rek bëgg ngaa ñaan wala nga bëgg a yittewoo dara rek numéro yi mën ngeen ci woote 76 833 59 18 833 59 18 kon niñ ko waxee noonu Badu Wudood Hedi Jamia ngay liggéey 787 sa fasul bu ko defee nga bindaat lee ma la wax noonu Badu Wudood Hedi Jamia nga tijji seen miim yëpp bind ko mu allahu nga koy bind 66 nga tëji miim yëpp incha allah def ci sa tur ak tur ki nga bëgg a nopp su borom na la ko tàggatal mu topp say ndigal te incha allah doo ci am benn jafe-jafe ñu bàyyi xel ne képp ku bëgg a liggéey li ma la wax nag da ngay def astaghfirullah téeméer def saatu àll bi téeméer boo jéggaloo ba noppi ñaan eh, day gën a jàppandi kon képp kuy liggéey dal rek day jiital istixfaar ba noppi doo ko tàmbale liggéey li ngay liggéey ci tur yàlla yi ndax saa boo jéggaloo yàlla ba mu la rek li ngay liggéey day gën a jàppandi kon incha allah rabbi eh, mën ngeen cee gën a bàyyi xel bu baax a baax gën cee teewlu ndax mbir yi nii kese la képp ko am ne am nga jafe-jafe rek eh, suñu borom yàlla na ko saafara te doo ci am benn jafe-jafe waaye ñu bàyyi xel ne noob gi noob gu am doole la goo xam ne ku koy liggéey rek nañ ci seet yàlla bu baax baax incha allah jëri ngeen jëf